jaanako yaatu ba léegi moom day maan jaar jaar jaar jëm sëriñ bi dangaa tudd ñaari yàkka kii ñaari yaram ak kii yaroo ñaari yaram moom wëjulu fàbbu woon kii yaroo wax na yaatay fàbbu kooku nag ma doon laaj ci ko bëgg a tànn yan maanaam noo koy xàmmee ba tànn moom laaj boo xam am solo la ndax nan koy tànnee ci xamul moom mun la xam ci ma ki mënu la ëw mënu la atte ëw kat ni ëw bi ci xamul dëkk tàngam mënu la xam yoonu muy jaar ba dem ca waaye nag ahlu xaqiqa tëral nañu yoon wi ngay jaar mooy kon li nga laaj ndax ki jëm ci yàlla te dog ba dog ba dogoo mbir moom lañ tuddee al muridu mooy ki am warante jëm ci yàlla ci namm ci décidé jëm ci yàlla boo seetee ci fokk soo tàmbalee ba fii lu toll képp ku jëm ci yàlla moo tudd murid mooy murid soo ko jëm yëpp murid jëm waaw murid ñaari daraja la al muridu sadiq ak al muridu kadib al muridu sadiq darajaam mooy ki nga xam ne wëtti na lépp jëm ci yàlla nga xam ne dara itteelatu ko lu dul yàlla waaye xamul xamagul lu ko cay àggale xamagul ku ko cay àggale xamul yoon wi waaye dogu na ba nga xam ne dëggu na ci moom ba nga xam ne dëggati dara lu dul loolu kooku nag mooy ki seet ku koy war a àggale kooku muy yoon wi mu war a jaar ba xam ku koy war a àggale sant nañ ko na bari jàngum alxuraan ak teewlu bari salaatu ala nabi di ñaan ci borom mu wan ko biddiw maanaam nujumul huda ban ci nujum yi ban ci nujum yi mooy nët ni bi nga xam ne moo amee aw yoon moo amee fatxoon ndax yeneen dafa am su borom tabaraka wa taala bindee ca yow ma xalas ci birabbikum la room yi xeetoo ci lañ sappaloo woon ànd ñenn ñi ne wanante ne ñu ci def ni déedéet amul wanante bépp ruu bu xeetoo ak ruu bu mag boo ñëwee ci àdduna bu wootee fokk nga wujj ko kon nga xam ne kenn ku nekk suñu borom sàkkal la ñu ngay war a àndal yow nag yaa ngi seet ci kan nga war a toog ndax am na xaqati bu bari lañ ñu bari mën nañ cee mat la nga xam ne al ustaadul muhaqiq wala al murabbil muraqi àgg nañ ca waaye am na ci koo xam ne moo moom la yàlla def sa wërsëg sa wërsëg ci moom ak nga xam ne maanaam ki la yàlla booleel ak ku la yàlla booleel ñi nga xam ne àgg nañu ci àgguwaay ba boo àggee ci ñoom dañuy xool sa mbir kan moo amee sa yéene mbir ñu yebal la buñ demee ba mu néew ndax Cheikh Abdoulaye Chahrani radiyallahu anhu muy laaj Cheikh Aliou Xawa radiyallahu anhu sëriñam nan ko ndax li ma wàll yi daañu wàññi ko ci jamono nit ñi sàggan ba matatuñu ñett téeméer ak fukk ak ñett yi ñu daan doon mu ne ko déedéet du wàññi ko waaye nag dañuy nëpp ndax nit ñi ñoo dootul yey woo xam leen boobaa da nga leen dul xam dañuy dañuy nëbbu ndax nit ñee dul yey woo xam leen ndax wàll yi suñu borom di nëbb ñetti xeet ñi xeet dañuy làmbaayoo adduna ba kenn di leen ko fooge ñi xeet dañuy woyof ci adduna ñàkk solo di sol sagar wala ñuy lagg yi wala ñuy gumba wala ñu mel leen ba kenn di leen ko fooge ñi ci def mooy ñi gën a nëbb dañuy ñëw nit ñi ci lépp ci zahir ak ci baat yi ba kenn du leen ko xool yow mi nga xam ne que yow yaay muridu sadiq bi nga xam ne da nga bëgg a xam kan moo amee sa xat kan moo lay ubbi boo seetee jawahir maani da nga gis loolu wane ne fekkente ne xam nga farlu googu bari say salaat ala nabi ndax dañu ne yonente bi salaatu na suñu borom gën a bëgg te julli ci moom day tax yonent bi sopp la te ku yonent bi sopp suñu borom daf lay sopp ñu ne salaatu ala nabi moom la nekk la nit mën a jàpp bañ a ba bañ a am cheikhul murad yi te àgg te àgg ca àgg waaye ba ñu ne salaatu ala nabi limam bu nekk am na jagle bu fekkente ne da nga koy def téeméeri junni bis bu nekk ba mu mat juróomi at da nga gis yonent bi salaatu ala jahran ci lu dul génn ak la ñeneen ñoo xam ñu gën a woyat loolu ñu gën a wàññi ko bu fekkee ne da nga koo bàyyi dana ko wax mën ci faral di gis ci génn ñu ne salaatu ala nabi baatam dafa yaatu yaatu koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam la lay jegeel ba nga xam ne bu yomal xaamee ni mu ko waxee ne kii ma gën a jege jotaay yomal xaam ci yéen mooy ki gën a bari lu mu julli ci man ñoom nga xam ne boo ko barilee noonu la lay soppee noonu la lay yëkkatee teg ci cheikh murab bi boo xam ne moo amee sa sax ko moo lay ubbi am na ci ñi nga xam ne murid saadati yooyu bari na ci ñoo xam ne dañuy def li ñuy wax riyaaba riyaaba ñii daan ko def ñaar fukki fan ak benn ñii daan ko def ñaar fukki fan ak ñett ñii di ko def ñeent fukki guddi yëpp ñu ngi ko tëral ci xadis bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko def man axlasa lillahi ñi ne arbaina sabaaxan ñi ne sittina sabaaxan fataha allahu qalbuhu aw kama qaala alayhi salaatu wa salaam képp koo xam ne sell la nga suñu borom dëgg dëgg maanaam lu génn sa xol ci lépp lu dul yàlla ñeent fukki guddi suñu borom dana ubbi buntu leer ci sa xol waaye riyaaba boobu ci ñi koy def ñi ci gën a bari dafa mel ni xalwa te wuuteeg xalwa da ngay wéet di jaam yàlla doo tàggoo jaam alxuraan ak salaatu ala nabi wala istigfaar doo jaxasoo nit ñi da ngay am régime daal ci lekk maanaam doo lekk lu am roo yaa doo lekk lu diis ndax day diisal sa deret daf lay tànneel loo day lëndëmal sa xol day lekk lu woyof beddiku loolu boo ci yàggee fekkente ne ñeent guddi yooyu ñuy wax ñeent su bopp dina la leer ne ubbi nañ la ay bunt yoo xam ne yaa ngi bu fekkente ne yaa ngi koy def ci at mu ne benn wala ñaar da nga dem ba wóor la ne yow da ngay toog ay nit di wax ca Dakar mu wóor la ne nga dégg ko xam ne seen i baat xam li ñuy wax mel ni ñu ngi toog ci sa wet wala nga delloo koo xam ne ma nga nekk ca màkk wala ku jege màkk nga teg ci sëgër gis li muy def te àgg jooju ma boo fenn ndax limaamu Saxaari nee na wa min awaaqib tariqi tartaqi al mukaaxifaat nga dem ba nga xam ne mu wóor da ngay romb bâtiment bi nga wóoru gën ba attana waat ne boo ko roonoo mu yëkkati ko mu jóg wala mu wóor na ne nga mën a attana waat ci safara ak ci karam yoo xam ne boo tànnalee sa loxo mën na koo teg ci asamaan bi te boo ko yàgg soog a tàmbali ci yoon bi nag bari nga réalisations yooyu réabaat yooyu di ko bari di ko bari di ko bari raxas yeneen yu la seen yoo xam ne bu fekkente ne daf lay gën a xëy ci tudd yàlla tudd yàlla da ngay tudd yàlla tudd yàlla tudd yàlla tudd yàlla ba nga xam daf na nekk dox nga léegi dootoo nit bu boobaa tudd yàlla woo dina jaxasoo ak sa yaram sa yàpp sa jax sa deret sa si biir sa kaw bu boobaa jamono boobu nag ci nga gis ak kéemaan kaw gis di rëy jëriñ bu la seetee mooy nga bëggoon sax rek gis acteurs yu bari jëriñ sama bi kon ki nga xam ne daal moom moo bëgg a jaar ci yoon yi yoon yàlla yu dëgg daal ba àgg yoon woowu lañ ko uddin moo di riyaabaat yooyu gannaaw riyaabaat yooyu itam yow maanaam salaatu ala nabi yu bari ak jàng alquran ak istigfaar ñëwal sa wax ak jaxasoo mbindeef yi ci jamono yooyu fara fara nga taxaw njàpp sëñ Mate Fidlo rajo Lalla ba sama ne damaa néew maam ja léegi mel ni mel na sama faal ci àdduna ba di wax tuut te bu sa njàpp ba nga jàppaat donc kooku jaar na ko aw yoon bu fekkee nag nit ci wax ju bari moom dana nekk xijaab dana yiir nit naka la jaxasoo bu méttee nit ñi dana yiir nit nekk bari tur yàlla dana yiir nit lekk bu bari dana yiir nit nelaw yu bari dana yiir nit bëgg àdduna bëgg alal dana yéeg nit murid sarat bi nag yooyu ñëpp daanaka mucc na ci waaye yoon yi muy jaar mooy noonu xooxee rek bu soobee yàlla suñu borom dana ko daal di wan ci yoon yi daal gis benn mu bari salaat ala nabi ba yonente bi salaa sama téye ci loxoom bu yomal saa dama bokk ci ñenn gën a jege kooku moom bu amul sax rek di caa di nag am sax rek yaa gën ci amul sax ndax suñu borom dana gërëm ak jàpp noppi man koo wan dara ngir bañ ñu ci boppam fekk kii mu wan kumpa yi kii ko gën moo ko gënal li nga xam ne dina xañ ci àdduna ngir fonk ko ak ñàkk fonk àdduna jombale ko ko ba xañ ko àdduna ba yamal xiyaam mu ne ko xamal tax ma xaaral xañoon la àdduna ci àdduna yi dund mu ne ko léegi mu ne ko fonk bu ma fonk ak doyal bi ma doyal bi àdduna moo tax ma jombale la ko boobaa da koy wan ay darajaam ak i teraangaam bu keroogee dina jëpp njëpp moo xam ne ci kanam ñëpp ñëpp daan ko ñeex kon ci loolu
waaw ñu ne dafa defee ñetti laaj mu ne daf doon julli benn aar benn rakaaw mu jaxase ci ñaari aar yi boobu laaje muy laaje ab taali bi nan la war a mel ci dara mu sëriñ mu yegg ci benn conférence boo defoon ci ci réewu Max yi nga xam ci leen ko muy mooy occasion mu leen raawoon benn aaya da leen ci tëj lool woon ne pour laata ñu def daa ay ñoom ci woon ak xaarma mu leen am ko woon ñetti yoon ne boo ko dama ci bu bari loole bu ko ko def
waaw ci julli julli moom ci saa ci jàng bi moom gannaaw kuréel ak yaram foog nañu rek nga jàng saa bu mag moo gën a nga jàng ay aaya waaye benn aaya rek boo ko jàngee donte gudd xaar nga jàng rek lay dana doon waaye sit nañu nga jàng saa ci rakka bii rakka ba ca tegu nga jàng saa mu ko fit wala mu ko féete kaw dañoo bëgg rakka bi jëkk saar wi ne sut ne féete kaw ñu lay jàng ci rakka bi ci tegu waaye bu fekkente ne da ngaa jàng saar boobu jeex nga teg ci weneen wala nga bañ a jeexal saar wi wala nga naan jàng nangamu saar wala nga jàng ci aaya jàng ci aaya ci digg bi yàqu fekkente nag da ngaa jaxase aaya yi waaye dëmmuloo benn yàq yàqulu benn maanaa ci li ci gën a wér waaye boo xëyee rek sib nañu ko sujjóot tam bi jawaat boobu mooy laaj bi ñëpp bi beneen bi waaw بني صفات السابق المريد باختصار جمع اختراع من أربعة جمع أربعة جمع اختراع أو اختلاف من من المريد السابق تلك تجاهنا ñeent la dajale naa ko fii ngir ragal woro maanaam taalibe yi woro woro mooy lan defe ne yaa ngi ci dara te nekkuloo ci dara su fekkee ne woro ñu tane mooy nga defe ne yaa ngi ci dara ba su dem ba su borom xamal la ne leen nekkuloo ci dara nga wax ci la nga newoon nekk ci dara waru biir moo nga sax ca ba dee fekk la ca ëllëg nga xam ne waru woon nga waru nag yàlla na ci yàlla musal jaam bu mu doon waru ci jullit moom lu mat ci muslim la lu ñaaw la lu metti la lu naqari la ixtisaar la wax ci gàttal ne la ñeent rek la li jiitu ak sëpp fi mahabbati cheikh li ma waxoon ne sopp sëriñ bi gannaaw sopp sëriñ bi mooy sa wasiila ci yàlla sopp bi nga koy sopp sopp yàlla gee ko waral ndax bu dul woon yàlla doo ko sopp doo ko teg fenn boo yaakaari woon ci moom yàlla doo ko sopp kon sopp bi nga koy sopp li mu lay jëmale ci yàlla ndax kon yàlla nga sopp kon loolu sopp yàlla la ndax boo soppee suñu borom tabaraka wa taala wax ma ne ci la koy won ci la koy tegtal waaye képp koo yaakaar ne sopp na yàlla wala muy jëf jëf ko sopp yàlla da nga koy sopp bu fekkee ne sopp bi nga sopp yàlla dëgg na ci yow ndax ku sopp dara lépp luy xëcc jëme ca sopp lépp lu xeetoo moom sopp lépp lu ànd ak moom wala kon ak sëpp ku fi mahabati cheikh yi ak cheikh bu fekkee ne cheikh bi mat na cheikh dëgg ndax cheikh ay charte la am waxtu woo koy siyaare xolam ma nga ci xadra ci xadra bi ku nekk ci xadra ba am na ay teggin yoo xam ne boo nekkee moom moom la laaj te bu fekkee ne cheikh bi cheikh bu matal chaque cheikh la day yër sa xol day jàlloo li ngay xalaat sax sa wax am nañ ci ay misaal yu bëri wax jotee taarixu institut benn taali bi boo xam ne mu ngi doon ziare sëriñam am fu mu masoon a jàdd ci jàdd jàdd yooyu de ngeen xam xelam dem ci dañ xanaa dooru xam nga ne ko kon mi nga xam ni ci di xalaat suñu borom mu koy wan kon ñi nga ko war a ormaale da nga war a ormaale xadra ba ndax wartoo gis insaniyam da nga war a gis rek li nga bëgg ci moom li ngay xëy muy yàgg yàlla gi mu lay won yoon mi lay won moo tax ca al xubb mahabbat moom dañu ne taalibe bi sopp bi mu sopp sëriñ bi rek moo koy jëriñ ci moom waaye sëriñ bi moom sopp bi mu koy sopp bi mu sopp taalibe bi du ko jëriñ dara alquran dafa wax yoon bi faral innaka la tahdi ma ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa alam bi sabil bi ca ngi yow yoon bi da yoon bi moom mënul sopp ni rek ba jëriñ ko ak ci sëriñ waaye nag ki sopp yoon bi moom dana moom mooy jëriñ kooku moom mooy am njëriñ yàlla moom mooy ki nga xam ne boo ko soppee jëriñu bu la soppee nga jëriñ boo ko bëggee jëriñ bu la bëggee nga jëriñ boo ko xamee jëriñ bu la xamee nga jëriñ moom suñu borom tabaraka wa taala yonente bi alayhi salaatu wasalaam bëggoon na Abu Taalib lu ko daan aar ba tax ne bu ñu ko jéemi jëm tuubloo mënu ko dafa raal yaramam yëpp fépp loxom laal du lakk waaye bu ñu ko nee ndax Abu Taalib lu mu daj ci yow yëpp ndax jëriñ nga ko dara ci digganteem ak yàlla mu ni waaw waaw waaye mu ngi ci ay test test safara yoo xam ne mu ngi sol daal di safara yoo xam ne yuur daal di xet di tànn ay tànn yi yonente bi salaa sallam bi mu raayee raayee biir tànk bi bu fekkee ne kon nit ki moom mooy sopp li koy jëriñ sopp li jëriñ ko kon asirku fi mahabbati cheikh yi dëggu bi mu dëggu ci sopp bi mu sopp sëriñ ba sopp léppam moo koy jëriñ ndax moo taxaw taxawaayu bëgg suñu borom moo yóbbu it ba nga xam suñu borom ba bëgg ko suñu borom ku ko xam bëgg ko ndax lépp lu ñuy bëgg ci suñu borom la nekk te léppam yënguwul lenn waa waa àjjana buñ leen waroon suñu borom buñ leen ko waroon jiir di gën a gàtt buñ leen joxatee àjjana ñu nëpp ko waa safara buñ leen génn woon wan leen suñu borom jiir bu gàtt ñu xeeb àjjana kon ñu muslu ci àjjana buñ ko gisatee ndax suñu borom tabaraka wa taala waxuñu rafetaayam ak matam ak kattanam ak xam-xamam ak yërmandeem ak léppam waaye Seydina Jibril rek fiimaanam ak réewam ak kàttanam ak rafetaayam yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñetti yoon rek la rafet Seydina Jibril ci meloo ko yàlla bindee dëgg dëgg dëgg te ñu ko gisee dafa xëm bi mu xëm ni ko Seydina Jibril na ko ay boo ci doon jiw beneen malaayika xaw ma noonu xaw ma xam nga kon suñu borom moom azza wa jalla bi ko yonent yàlla Moussa di laaj rabbi arini anzur ilayka ndax Moussa dafa dégg waxi suñu borom mu bëgg na nga gis suñu borom biñ ko nee ndax yow dégg nga waxi suñu borom mu ne waaw ñu ne ko waxi suñu borom na mu mel mu ne mu mel ne juróom-ñaar fukki junniy dëmu ñu dalandoo ci sa bopp moo ko raw loolu sax mënu la koy jox idée ànd ak bànneex boo xam ne kenn mënu koo gisaat loolu la mel ñu ne ko ndax gis nga ko mu ne déedéet xalaat nag daal di xalaat ndax gis suñu borom nan la war a mel comme ni ma ko déggee loolu mu demee waar te xam naa ne lu tuuti ci li gën a tuuti ci li tuuti la ma la ma woon moom laa dégg ci ko xam kon bu ma ko gisoon rabbi arini am jumla suñu borom wan na ko bopp ma xool na lan saraa ni mun loo ma gis maanaam ci adduna ndax laaj bi ko lépp taal suñu borom bëpp mënu koo gis maanaam nit jëmmi nit yaram mu doon nekk yàpp ak def ak tënul gis suñu borom suñu borom di ko misaal loolu ne ko xoolal montagne bii ba ñu dëgër wi au fond bu ma ko feeñoo la gën a tuuti te te dammul tëjul rek kon yow nga mën a yaakaar ne mën nga ma gis suñu borom ñii ne lu toll bën bën si ñii ne lu toll mbakkanu tël ñii ne lu toll nangam xamuñu ca dara la gën a tuuti ci la gën a tuuti la suñu borom feeñ ca benn ba ñu nooy ba nekk pënd tax ci jaww ji suñu borom dellu delluwaat ko la mu yaram mu ne kon moo tax nga taraan yi ba mu ne ko walaati ñu waral nga mën a gis taxar ma taxar ma ko ci taraan yi vraiment dañu daan daal boo jëloon jëlaat nga àkkal wax dëgg mu àkkal ak yonent yàlla Moussa daal di xam yéen a yonent yàlla Moussa ndax gis naa dara wala gisul dara wala maa ngi ñëw ci am ñu gis gi Moussa gis mu mel ne gisul ndax mu mel ne yow oto buy ñëw nga jaar ci tali bi bi mu àgg bi muy dal sa kaw bi ngay daataan bees mu dal sa kaw nga xam ba xëmmaliku gisuloo oto bi gis boobu daanaka du gis gis ko xam nga lan mel gisul dara ñu ne Moussa gisul dara kon boo ko defee nag ci borom kon nelaw yi nelaw li ci doomu aadama xam li mu néew néew bëgg nga koy bëgg boo xam ne boo ko gisoon doo ko lekk ñam yi day naqari ci yow doo ko naan ndox bi day ni mu booy xool wàcc dañuy ñaan ci yow boo déggee ko wax nga wàccu ndax ndox bi day naqari ci yow boo déggee ko doo ko mën a nekk ci adduna bi yan ca Moussa dafa ñaan suñu borom ne ko naa ji yan ca Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam suñu borom ne ko xoolal guus suñu borom dëkk foofu la ñu mujjee traité ki nga xam ne kon bëgg na suñu borom bëgg boo xam ne jeex lépp lu koy àndal suñu borom dana bëgg loolu ñu ngi doon jàng ci ko loolu nag moo di koy jëriñ ak ci bi mahabbat cheikh xabar li ko tegoon yëpp ñetti lay ñëw su ma gisaay amul yi xaj war a topp ndigalam ndax li mu lay digal lépp am sa xaw si neer yow même bu sëy bi juumoon la mu juum digal la ko moo gën ci yow lay la digal nga def ko ndax su ko lu xóot la lu doy waar la ñi ko topp ba àgg ci kii bi rek ñoo ko xam kon imtisaalul amri te du la digal lu dul li gën ci yow moom sëriñ bu matee sëriñ du la digal mukk lu wuuteeg lu lislaam lu dul lu dajee ngërëmal yàlla la lay digal kon topp digalam wattandiku ay tereem mooy tax nga yem ci ay loxoom ba mën laa wamat ba àggale la fu nga jëm fu nga bëgg a aar moom mooy xam mën ko fekkee nag am nga diina mooy jël ci ci am na lu muy def nga naan waaw lii bi tax nga def ko ak lii daal na xam علماء يبدع قرنتي اللي هو سيد الحاج مع الواحد بلا ومن يأخذ لشيخه فقل لنا في واحد سلم بلا قرن شنو قاعد ما يملك يأخذ فتأبو خدمة طب سلم اللي خم لي سلم سلم واسطة العلماء واسطة الأنبياء donc aadama ñi nga xamee ne moom mënul bopp nga rek ci juddoo dañ koy aw dañ koy doon dañ koy sang dañ koy turbi dañ koy wat dañ koy nàmpal dañ koy jàngal buñ ko bàyyi woon du xam dara kon ku ne nit mënul jëriñ moomam dara waxuloo dara waxuloo dara parce que ci ma ba teg na ma ci am yaay war ñu ci tegoon de waaw al soit sama bu ixtiyaar mooy yow sa bopp amatoo benn volonté maanaam loo fas yéene ci kanamam ah lu lu mu la wax rek boo rab boo def dara ndax yaa ngi sàmmoon teg xadara bi nga xam ne ci la xolam nekk ndax xadara ba dafa laaj teggi yu mag a mag a mag a mag a mag ndax lu tuuti rek mën na caa alal nit loolu moom moom ngay teewlu te moom moo lay jàngal teewlu ba tax na waxtu boo xamee ne yaa ngi ci xadaraam yaa ngi ci wetam teggi yi ngay sàmmontee ak li nga xam ne moom ngay nangoo wommatu li mu waxee ne ba kun la cheikh kamay ci wudaa bay ne de rafi ni tan tafi'a te si da sëriñ saxuti dafa ne junne bi dina junne bi moo ko wax mu ne sama bàyyi def ma digal sëriñ sax da sëriñ saxuti dafa ne junne bi dina junne bi moo ko wax mu ne sama bàyyi def ma digal sëriñ saxuti ñu dem sama sëriñ digal ma ma toog dama sëriñ sax di digal sëriñ sax ci la jaayam la mooy moo doon sëriñam ci xaqiqa li ma xam ci loolu laa ko amee te fii naa dina ku nekk dégg na ko moom lay tuddee sëriñu taifatin sëriñu taifatin sufiya moom sëriñ naa dina kon martam bu màgg bu sol bu kawe la moom yëpp daje nañ ci ba ci ñi nga xam ne ci yenn ci xanaa dina yi dañoo di nga yenn ni mu tasawif Seydina Junayd bi même Ibnu Taymiya ak Ibnu Qayyim ñi ci gën a soxla épargné nañu Seydina Junayd bi Cheikh Abdou Qadir Jilaani Ibnu Taymiya ci mu gën a soxla ci moom mooy Muhyiddinul Arabi Muhyiddinul Arabi ak Shibli ñooñu nag damat bu méttee métti te it dañ ñooñu dañ ci doon xam tasawuf fa am lu umpale loolu la ndax Limaam Ahmad ibn Hanbal mi nga xam ne mooy seen sëriñ ñoom ñëpp gëmoon tasawuf nag daf daan tukk moom li maamu Shaafi yi ci kanamu Maaruful Karaxi Sidna Ahmad ibnu Hanbal benn bis doom bi ne ko waaw waaw Ahmad ibnu Hanbal kii Maaruful Karaxi ndax am na xam-xam bu ñu ci lopp lu ñu doon xam-xam lu ñu bëgg mel ne Maaruf ndax Maaruf jàng na naka noonu Cheybaan raay daa xëy daa xëy waaw bu fekkee ne kon talabul ixtiyaar yi boobu am na mooy waxul la ne Cheikh sama ci mu wudaa ba dee dee xaas bi tam tafiaa boo nekkee ci kanam da nga mel ne néew ci kanam ki koy sang nga diggante boobu nga fay jógee ndax waxtu woo xam ne xam nga xel dafa ñëw ngir firi révélation maanaam wax yu giire nit ñi ci seen mbiri adduna bu demee ci mbiri mbiri yàlla dafi àgg foo xam ne xel daf lay yàqal ndax dafa bëgg a ñëw nekk ilimaan yi kat lu sa xel nangu nga weddi ko lu la sa xel may ngay toog boo tax bu fekkente ne boo ko naa ni nga xam ne boo demee ci xadra ba alxuraan sax jàng ko wàcc na la li anna xadrata xadratu bët yi téeyu gadam la ñàkk a xam ñàkk a mën doo ñi nga xam ne noonu la Moussa la bi mu xamee noonu nga xam ne mooy xadratu bët yi taalib bu fekkee ne sëriñ bi mat na sëriñ mat la sàcc sëriñ taalib bi itam xam yoonu taalibe bu nekkee ci moom bàyyik boobu muy bàyyik ba wacc ci xelam fële ca la ko leer bi mën a duggee waaye xel ci boppam day fànq leer guy dugg fi mu daf koy gaañu quoi ndax luñ la wax nga seet ko sa xel ndax lii xel nangu na ko wala nangu ko xel bi doon xel ci boppam Seydina Abubakar dafa ne fa inna diinana mabniyun ala naqli la ala munasabati al aqli suñ diina ji dañ koo tëral ci toxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee na waaye du caa bi loo xam xel moo koy wane nga naan nangam li ma sama xel jox wala nangam laa gis wala nangam déedéet da ngay dindi xel teg fee bu ñu demee nag ci mbiri àdduna wala mbiri science wala mbiri leneen loo xam ne nii daay tajriba daal di expérience ak lépp loo xam ne ni dañ koo bëgg a xam ci àdduna suñu borom bi mu xamee ne yooyu mën nañ xel mën nañu koo xamal lanu roof xel ngir lu mën a dund ci àdduna li nga xam ne xel mënuñu koo xamal mu yónni ay yonent wàcc alquran mu war a wommatu ci yooyu teg nag ci suñu xel ba pare anna diina fawqa al aqli loolu mooy ay lëpp wa kulla de cheikh yi que mesir wugaa bayna yede raasibihi tantafiha ñu ne boo meloo meloo ci kanamam da nga jëriñu suñu borom maanaam ndax suñu borom day ibbi sa xol léegi ndax gis nga xel li ma waxee ne noonu lay dàq noonu lay fanq leer bi da nga gis nit koo xam ne buñ borom xol bu nooy bu ñu wax waxi yàlla ba mu daanu bi ñuy wax daanu leer bi ñuy sànni ci xolam la ndax àndatul ak xelam ñàkk ànd boobu mu ñàkk ànd ak xelam moo tax leer boobu mën a dugg bu leer boobu duggee mu mbëkk dara wala mu duggal ci bopp loo xam ci safara wala mu naan lu tàng wala mu def dara bu ko wàññi dara ndaxte boobu xel moo dàqu bu ko defee nag lu fay toog ngëm ngëm nag bu remplacé xel yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom jaam bi bu ragalul dara lu dul yàlla yàlla du xiir ci kawam dara xelal ko ba tay ci ay conférence loolu moo taxoon Seydina Abdoulaye ibn Abbas jàppoon ci nopp gaynde gi di ko woomat di ko ne ndax yow da ngay yonent wala li tax nga mën mu ne dama dégg Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne doomu aadama bu ragalul dara lu dul boromam suñu borom du xiir dara ci kawam maanaam dara du ko lor su fekkee ne ragalul dara lu dul yàlla dan nag ñàkk a ragal lenn boobu di xaar ci moom wala muy maqaam xaar moom daf lay gane ci béréb bu gàtt dañ buy ñëw doo wax sabab lu buy demit doo ko mën a téye te diggante bu gàtt lay nekk ak yow mooy ni nit ki daanoo ba ci mbëkk bi te du ko wàññi dara wala mu jiir ba ci kaw Cheikh Ahmadou Dara bi daal di génn dañ daan wax ay gaynde dañ daan jiir ba ci garab bu mel ne roon bu gën a kawe jiital seen bopp dara suuf bu jógee faxal ci dara leen dara ndax loolu xaal bi ñu nekkee seen xel dàqu na léegi seen xol rek leen di gidee dafa fees ak ak leer wante loolu bu fekkee ne xaal la day daal di dem ci saa si dootoo ko mel bu dee maqaam la nga xam ne maqaam day sax ci nit bi meloom la bu bu ko defee bu duggee ci géej gi day dox ni muy doxee ci suuf si bu laalee safara day sedd mel ne ndox bu gayneen du dal ci kawam jaan du ko mat dara du la du ko laal yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu tax mu rawoon ñun ñëpp ba noppi ba noppi xaj di ko gëdd di ko mat jiit di ko fett moo di dafa weesu maqaama yi ba dellu si ñu doon nit ñi ngir bëgg a àtte moo tax mu ne inni la an saa aw ata naataali ak tànn danaa fàtte wala may fàtte fàtte lu ngir yoon la léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu bëggee xamal boo sëlmalee ci ñetti rakka la nga yéwee la julli bi mën na juum juumlu fekk juumul waaye aalim bi borom xam-xam bi sañ ko sañ la juum juumlu yàq julli bi dana am bàkkaar mën na la koo jàngal ci téere bi waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu joxe lu concret li ngi gis matérialisé yéen ñu jàng xam ngeen ko bu julli ñaari rakka waxtu takkusaan dal ci sëlmal daal di jëm yéeru ci genn tàndarma kër nag ba nga xam ne kenn ñi moo koo tudd bu ñu wax julli yadee ni waaye dañu tax ci doon ko julli yadee ni borom ñaari loxo ñi dafa amoon loxo yu gudd loxo yi dafa gudd ak guddi di ko julli yadee ni bu daal di ndox moom waa ko ba ak ci yàlla dina la ko yow yow yow ci yàlla bi ndax julli dama wàññiku wala man maa juum ñu ko julli wàññiku juumuloo inni la anta aw atanasa ali ak tànn man leen nag damay juum wala ma juum juumlu damay fàtte wala ma fàtte fàttelu ngir tëral yoon daal di kat kabar yéene ñaar rakka sëlmal sujjee baax na salaam ngir jullit ñi xam ne boo sëlmalee sa sa julli na ko loolu jóg da ngay yéene li def mu dee benn rakka wala ñaar boo sëlmalee nag nga sujjee baax na salaam naka noonu bu fekkee da ngaa dolli benn rakka baax na salaam boo wàññee xam na salaam loo xam ne du du ponk bu ma tee ponk nag rakka boobu day yàqu bu jëfee wala yaa ngi ci julli bi bu fekkee julli bi yàqu la julli bi yàqu na ila axiri ila axiri bi kon xel dafa am domaine am boo xam ne fa la war a yem am koo xam ne dafa yàq ndax xel ci boppam day bëgg fu mu nekk rek nekk imam ñu topp ko te ñaari imam du mën a am bu yàlla taxawee wala mbiri yàlla taxaw bu bu xabat yi dara ci yow def ko imam muy xel sànni sa xel fële donc moo tax mu ne wa kunna de cheikh yi kamoon ci wuti a bàyyi de raat yi tam dafa yàq ñetteelu bay bu ci benn waxee ci xiraam li weesu yóbbu na ko moo di bu mu def dara ba nga natt ko ci andaari sharia wala andaari xaqiqa ba ne joom la foofu nag lañu bëri mënul dégg foofu lañu bëri mënul dégg am na ay teew ay règle yoo xam ne mun nga ko sax waxtaane ndax du dugg seen bopp wala dina yéex te mën na leen kon kooku laa jeex na ñu dem ci beneen واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا dafay aju ci xista bu gudd boo xam ne bëgguma ko tàmbali di ci gën a guddee lii nga xam ne ci gàttal moo di ne yow ci seen bopp dañoo amoon xam-xam ndax dañoo jotoon ay téere xam ngeen ne judaïsme maanaam diine yawat ba Ibrahima paase Ibrahima moom nekkul woon yawat ma kaan Ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana hanifan musliman wa ma kaana minal musrikiina waaye Ibrahima moo jur Isxaaq ak Yaqub moo jur Isxaaq ak Ismaïl astafurlah Ismaïl mooy bàyyi arab yi Isxaaq mooy bàyyi yahud yi ndax moo jur Yaqub Yaquba ci boppam la ñu tuddee woon Israil Israilullahi baat il mooy tekki yàlla boo gisee suñu malaayika yi il bari ci Mikail Israfil Asrail Jibril yooyu yëpp il boobu mooy suñu borom tabaraka wa taala maanaam secrétaire suñu borom jaamu suñu borom aji bëgg suñu borom nangam suñu borom noonu. Yaquba nag lañ tuddee woon Israilullah Yaquba nag kon mën nañ ne diine yahud foofu la tàmbalee diine yahud yi nag dañoo jox téere yu far yoo xam ne ay yonent yu bari lañ yónni ci ñoom ñu ñëw indi ay téere di jàngale arab yi ñoom gannaaw ñeent rek ñoo ci yonent ñeent yonent rek ñoo ci arab yi ci des ñëpp ay aadam lañu maanaam li ñu arab arab yi amuñu woon benn téere amuñu woon téere ñu ci demoon ummi yoon ak jaahiluuna ummiyuuna mooy ku jàngul jundul ku jàng du jund muy yoonu ah yow gi nag tuddee seen bopp ñoom ñooy ahlul kitaab ñoo def ay téere ñoom nag ci téere yi ñuy jàng ñu xam ne am na yonent bu suñu borom bi yónni mooy doon yonent bu mujj bari na ci loo xam ne yahood yi ak nasaraan yi bind nañ ko xam wante sax na ba léegi évangile yi bu ñu seetee maanaam injil yi injilu Bernabe leer na ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne noonu la ko alxuraan indee ko boobu am alxuraan ñëwagul Muhammad ñëwagul buñ ko indee waa église bi daal di koy dàq dàq évangile am waaye ba léegi am na man ñi am naa injil boobu anglais boo ko leeree boo ko lire dana woon leeral bu leer ci jikko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ngëm ci yonent di yonent ci gën a fort misaal la ne suñu borom waxoon na ne borom mbaam bu ñëwee gannaaw bi borom borom borom gëneen bi mooy ñëw moo mujj ci yonent yi borom mbaam mi mooy yonent yàlla Isaa moo waroon mbaam ma ahwa raakibul imaari fa yaa ajza ilaahi yow ma yëbasuwoon ah ixyaawu yonent yàlla Mustafa moo waroon gëneen bi mooy borom gëneen bi indi na yeneen tegtal yu leer tuddil sax tur wi tur wi dund gi am nañ ci ay wuute waaye ni ñu ko traduire yëpp bu ci nekk Ahmad lay indi wala Muhammad bu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bi ñu gënee ne am na yonent buy ñëw ñu gëm ñoom yahud yi ne ci ñoom lay gis ndax ñee arab yi ummi wala la ñu xamuñu lu ñu jàng dégg nga ñeent yonent la ñu mas a am te yonent yooyu passé na ñoom kon gannaaw wax yi ñoo ko daan dégg ko dafa jekk yonent bi ci ñoom lay ñëw bu ñu waxanteeg arab yi wala kenn ku dul yahud ñu waat ak moom ci ne ak kii ñëw bu ñu dee xamal arab yi ne leen kii ñëw te di yonent di ànd ak ñoom daanu ànd ak moom bu bu yoonalee xare daanu leen def nangam ak nangam ba bu ñuy dim di ci dim di dim itam ci mbokk gi ndax mbokk gi gannaaw ñoom gëm nañ ne ci moom lay ci ñoom lay lay feeñ gëm nañ ne kon ñoom ñooy mbokkam bi nga xamee ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam dikk na ci arab mu bett leen lool ñu am ci déception mu jaaxal leen ñu am naqar loolu tax ñu weddi ko ndax lépp bi ñu ci am ñu weddi ko bi nga xamee ni nag ñoom gannaaw lu jiitu loolu ba ba loolu daatal ñëw ñaar yi nga xam ne ci alxuraan yi itam fonk na ko mu di waa budullah wala tushriku bihi shay'an teg ci wa bil walidayni ihsaan wa bil walidayni ihsaan ci lañ tibbee rahim boobu rahim moo di mbokk boo xam ne li ma ci waxoon sànq yëpp mu di foora foora foora foora ci ku ko suñu borom teg ak ku ci manqué dara ak tëkku gim tëkku ku ko xuufeel bu ñu bëggee sant nit loo xam ne du ko bàyyi wala du ko weddi wala du ca génn bu ëllëgee ñu teewal ko ci kanamu teewal yàlla ak mbokk xam ne kon mbokk boobu noonu lañ ko fonke woon kon mbooleem ca téere yu njëkk yi ak yeneen yu njëkk yi ba ci yu mujj yi noonu la suñu borom fonke woon ak mbokk li ci nekk dafa gudd benn laa ñu jël ñun ñoom boobu benn ko am leen état bi bëgg na naa ci leen léegi leeral ko am leen waram waaw affaire la mu war ramb ñooy ci lu ramb gi njëkk gi mooy asifaatul kubra mooy bi jàlloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bu gis pénc ba li ma ko waxoon ba ni muy nekkee nga xam ne nit ñi yàkkamti nañu buñ doon dem safara sax nañ leen jëlee ci yi ñu nekk mooy situation bu doon waa gerteem gerteem gerteem ba nga xam ne kenn ku nekk dafa ne safara li mu la naqaree nii yonente bu ne ñu dem ci moom du ñemee jege suñu borom di ko wax naan ko baal kenn ndax moom ci boppam mbiram doy na ko ba ñu dem ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom moo dem sujjóot ci kanamu suñu borom suñu borom ne ko yëkkati sa bopp tey di gisu jaamu ñaan loo ñaan ñu may la mu ñaan mu àtte jaam ñi ba nag wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa xese yu gudde yu gudde ci waxtaanee naa ko ci ay conférence yu bari waaye bi nga xamee ne yonent bi mooy njëkke sifaatu kubra moo ram moo tinu suñu borom ram mooy tinu moo tinu suñu borom ba mu nangoo àtte jaam yi ci li nga xam ne dafa mer mer moo xam ne kenn mënewu koo jege waxtaane nañ ko ay yoon ba daj dugg ci détail yeeg yëpp sifaatu kubra mooy bu jiit boobu ñaareel bi génn nañ ko ci alkitab wa sunna wa ijmaul ummati alquran dafa ne walaa walaa walaa yashfauna illa liman istawa walaa yashfauna illa liman istawa xal na ramu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam hadis yu bari nee na yaddaxulu fi shafaati rajulin min ummati mislu rabiata wa mudaa wax nañ ko ci ay waxtaan yu bari ganna waaye ci sama xeet yi dana rammum toll ne jiir rabia lépp ak jiir mudaa yëpp maa ngi ko daan misaale lu toll ne wala yëpp ak ci kulóor yëpp benn waaye ci xeet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko ramm yëmal xiyaam rambu moom ci nu suñu borom jaam bi mu gërëm ba ba ko yàlla may ko limit mbooloo boo xam ne dana leen rambu sañu ñëpp ñi ko ñi ko ñi ne woon safara yomal xiyaam ulama yëpp wax nañ ne yonent yi daañu rambu malaayika yi daañu rambu awliyaa yi daañu rambu naka noonu ulama aamiloon yi daañu rambu même doom ji ay waajuram gërëm sax dana rambu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ni na benn bis ci waa àjjana ku sëp ku sëpaat gis ci benn waay waa jooju xàmmee ko ne ko kii di diwa bu ne ko akay ci yërmande suñu borom mu ne ko yow ndax mun nga ma liir suñu borom mu génn ma safara yow day benn bis manga nga romb suñu kër nga ñaanoon ma may la ndox xanaa fàtte yow loolu waa ji daal di wëlbatiku suñu borom tabaraka wa taala ne ko kii day yow da nga ne ku dem àjjana dootu am lu la raxal te waa ji de defaloon na ma njëkk boo xam ne fayuma ko ko te bu ma ko fayul toujours looloo ngi def ci sama xel ma di ko ko amee dama bëgg nga génne ko safara mu dugg àjjana mu ne ko dama jàpp ci loxoom mu génn mu ne ko génn mu génn xanaa ram mu di am ba ba ci kese biir safara ram nag ba béréb yi muy amee ci la gënantee ki ñu ram mu biir waxam di rox ak ki ñu ram mu ci biir bàmmeel ak ci dëkk ñu ram mu ak ci taxaw taxawaay bu metti boobu ñu soog koy ram ak ki nga xam ne mu waral nañ ko ci safara ba mu jëloon di ko ca biir kabir bi bax ga nangami yoon ñu sox koy ramu ak ki ci am nangami at ñu sox koy ramu wuute nañu kon ramu rek am na solo waaye nit ci feeg mu ngi tund dafa war di ñaan di ramu ëllëg am dara ñuy ramu waaye ñu bañ koo ramu ñenn ci ramu yu yéex yi nga xam ne dana lot sox cee àgg ndax ba tey moo gën kat
am leen état bi bëgg na naa ci leen léegi leeral ko am leen waram
ramb mooy ci ni ramb gi njëkk gi mooy asifaatu kubra mooy bi jàlloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi gis ci baa ni ma ko waxoon ba ni muy mettee nga xam ne nit ñi yàkkamti nañu buñ doon dem safara sax nañ leen jëlee ci li ñu nekk mooy situation bu doy waar betteen betteen betteen ba nga xam ne kenn ku nekk dafa na seet lu muy def suñ borom na ko waaw téenal mu téen gis ay pale yoo xam ne ay building ay immeuble yu gën a rafet ci àdduna xel mënu koo xalaat e suñ dee wax na ku def nangam ku julli nangam ci wax sàngam daañu la tabaxal junniy njënd ci aj junniy njënd ci àjjana du dara ndax àdduna bii rek junniy njënd bii nekk Amérique bii ne France bii nekk bii ne bii dana sore ah foog naa koo xam ne kati gën a tuuti dana ci am lépp àdduna lu xel na nga mu ne waaw lii ban yonent bu tedd moo ko moom wala ban malaaka mu ne ko déedéet amagul borom waaye ci am ku am ndig rek ko moom te ku am njëg kan la mu ne ko yow ah man am naa njëgam mu ne ko waaw mu ne ko luy njëgam mu ne ko nga baal sa mbokk mi ne ko baal naa ko mu ne ko jàppal ci waxam ngeen aajal bi ànd dem àjjana ram moom ku ci sikki sàkk rek jànguloo sa àllee gàtt na lool wala xamuloo dara ram moom lu am la suñu borom moo ko teralee yenn ci ay jaam yi ndax suñu borom dafa bind ba yokk ñi xale dara jaam ñi alak ñii yéefar yi ba leen suñu borom di juddul def leen yéefar defaguñ ko dara yonent yi ak ku mënul awliya ak ulama wala amilona yi ba leen suñu borom di def loolu defalaguñ ko dara lépp ci coobareem suñu borom mas naa arak far lim bindeen lépp ci suuf ngir jënd jëm muy noox alayhi salaatu wasalaam te bakkan yëpp a yem ci moom yëpp moo leen moom te ku ko ci neex mu jaar la fu ko neex bi nga xam ne noox nee na ko rabbi laa tazar ala ardi min alkafirina dayyaaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaran rabbi ighfir li wal walidayya bi koy ñaan dañuy ak suñ borom dafa dal di indi mbënd mi rek koo faam te ku ko àndiwut noox te daal ga rek dal di lap kooku suñ borom moom sañ-sañ lay jëfe ak coobareem kenn du ko ne lu tax kenn du ko ne lii ëpp na kenn du ko ne lii tuut na kenn du ko ne lu tax nga teg kii lii kenn du ko ne lu tax nga may kii lii ndax inna laa yafalu maa yuridu gannaaw moom du jeexal te lu ko soob def te kenn du ko ne lu tax lu tax nga naan suñu borom wala nga def naan wala mënu la def naan wala attanu ko borom bindeef yëpp du mënuñu ko jëriñu ko dara su dara ci coobaram rek lay jëf rambu daal moom amul benn sikki sàkk ci koo xam ne wóor na la jub nga jàng nga dara lu bon bon alquran daf ko saxal xadis saxal ko lu bare bare bare bare ku ko weddi weddi nga wax yonente bi sax mos naa gis benn waaye bu ñëw di mën laaj ci affaire ramm mu ne moom daal li mu jàppee ramm mooy ci la ramm daal mooy ci la teg ci yoonu jub ci la xamal di nga maanaam sharia ba nga jëf mu ne ko ah sëñ bi seet nga sa xalaat bu baax mu ne waaw lu tax nga wax ma ne kon xanaa da nga bëgg ne kon moo xam ne bërëb bi ma sala sama jibril la borom wax nga lu baax ndax cheikh bépp jibril la ñëw jàngal ko ko alxuraan ak lépp kon jibril la ram moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi tax ñu bind ko benn laaj mu ne nit mënul jëriñ morom ma dara mu ne ko waaw kon ko dee da tax ñu di la jullee lu tax ñuy sarxal nit ñi loolu lépp du ko jëriñ dara jullit ñëpp umpale loolu di ko def mu ne mu ne ko naa waaw xanaa jàng nga ci alquran wa kaana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluga ashudahuma mu ne waaw doom day jëfi waay juróom moo tax kon kon jëfam kon di jëfi keneen a ko jëriñ maanaam jëfam ndax moom doom ji jëfi waay juróom ma ne ko ah xanaa kon da ngaa wax ne yonent yi seen bàyyi leen gën jëf kon da ngaa wax ne Aagara moo gën jëf Ibrahima ndax Aagara moo jëf Ibrahima te Ibrahima gannaaw Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo gën ci mbindeef yi kon boobu daal yéefar yooyu jël yonente yi yéefar yooyu gën jëf yonente yi loolu day na waar de asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngeen jébbal ñu ñaanante أحد كما تسمى بالكار وقفه إيه لا تجلى يا رسول الله